بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة بشرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من شوال عام جمس الشن تدكي دفو أهمي يالا ما سيوننا ci lawhil mahfuz ni niki xasidaam bii day bégal yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci shawaal ci la ko bind xam nga ni tey la ñaareelu fanu shawwal bisu altine bii nga xam ni jàng nañ ci ku tëdd ki wax ne madda illaya nafha fil ni bi jaahi man wulida fil isnayni waaw l'émergence yàlla jox na ko ko tey ak ëllëg ci barkeb gën ji mbindeef mi nga xam ne ci bisu altine bii la feeñe woon fii ci àdduna nee lu jiitu noon yi di ko song fekkoon na yalla jox ko lutfam lutfam ak ñewantam mm-hmm. fekkon ne yalla tambalé ko privilégié diko jaar ci yonentou bi alayhi salatu wassalam شكر إلهي المتعالي الوالي قد قاد لي منايا في الشوال يبقى ويرو سا ويرو الشوال بي نما كوي واخي رك ويرو نيك اك ليكو تي يالا ديفال رك واي تانت غي مكوي سانت يتام يالا ميغا خامني موكو جوخ اوتور تي كليفام با نوبي ديف waaw moo ko jox yi mu ko jox may yi mu ko jox jagle yi mu ko jox ci weer wi akramani rabbul aradi wasama bi les lazi la dee rusima secret yàlla bi nga xamante ni bii yàlla daf ko mentionné ca lawhil mahfuzam waaw ne yàlla mi nga xam ne moom moom asamaan yi ak suuf yi moom teraanga ji mu ko defal loolu lu yàlla bind la waaw yàlla bind la waaw secret yàlla la boo xamante ne bii yàlla mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko mentionné ci lawhul mahfuz ca tableau ba nga xamante ni bii rek moom lu ñu fa bind de lu fa yàlla bind day ñoŋ nee na li xaada jiman sutiratanil wara <laughs> man xaadilee maxtaara li wasu wara ni ko li ko ne li ko yàlla tànnal jaarale ko ci yonent bi nga xamante ni bi saara alquran yépp ci la bopp waaw daf ko ko defal ci iman defal ko ko ci islam defal ko ko ci ihsan waaw mu doon loo xamante ni bi lu ko suturaal la waaw ci diggante ci bi ci diggante mag mbindeef yi lu ko suturaal la ci mbindeef yi ci la waxaat ni yàlla mi moom asamaan ak suuf moo ko gracier moo ko gracier li nga xamante ni bi li nga xamante ni bi yàlla daf ko gërëm daf ko apprécier ndax yàlla bi moomee ñëpp ak lépp itam dafa am loo xamante ni bi loolu la apprecier am loo xamante ni bi daf ko ignorer mais lu yàlla apprécier lu nekk rek nag waaw lu mu apprécier ci ngooram yàlla souverain souveraineté mm-hmm. lu mu ci apprécier rek waaw lu mu ci waaw lu mu ci jox faveur rek baaxee na ko ko jaarale ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu ne son bonheur nag mu ne maanaam bonheur maanaam lu dafa nekk lu solide loo xamante ni bii waaw lu dul déng-déng lu dul sans lu amul fu muy yem itam nee na comme ay chambre rek ay tool ay tooli xéewalam rek ni nga xamante ni bii noonu lay noonu lay jebbee ak noonu lay màggee saadati bi leen tihaa in tabbatat kama basaatiini mun naa ya an batat man yëpp ci weeru shawal la ko bind fi mu ne fii ayatu rabbi mahajimi lil jinan ayatu rabbi mooy signe suñu borom yi mooy aaya yi ci alquran mahajimi waaw jimi la wax sama ñett yi ànd ak sama ñett yi ñett yi nag moom daf koo lëm hmm. mën na doon imaan mën na doon islam mën na doon ihsan mana don shariha mana don haqiqa mana don tarbiya mana don lu bax mana don lu gën mana don lu rafet hmm. mo xam la mu namu way mahajimi dal wax zadi wali safat hayati wal janan nena na len <laughs> la ci mom nena na nena dafa am daf ci avantage waaw manam ak dundam di sel waaw ak xolam waaw li ci déggin wi dal nima ko degge moy alquranul karim manam aaye yi ah, ci imaanam ak islaamam ak ihsaanam dafay sellal ak dundam ba noppi te dafay defar xolam dafay defar xolam suñu dégg nag day suufe waaye ci ni nu ko déggee noonu la koy waxee waaw di ci béglante ak mbokki taalibe bi ci weeru shawal wi la ko bind wax na fi daal ni moom bonheur moom amul fu muy yem ak texem texeek àdduna ak àllaaxiraam ak texem amul fu muy yem ni ay toolam di meññee rek tooli xéewalam nga xam ne amul fu mu yem waaw loolu daal ci weeru shawal bi yi may wax nii ci weeru shawal bi la ko bind loolu moo tax euh, tey di ñaareelu fan bi di altine loolu tax nu koy baaxi ñëpp nawaytu shukura rafihin aboqaani ci bisu altine bi waaw ci nuna rek nuna rek nuna rek gi mujj ci bisra yawmil itnayni nuna rek gi mujj ci la wax ne nawaytu shukura rafihin ñi nga xamante ni bii ñoo daje woon ak moom nekk ay ennemis waaw moom yàlla mi nga xam ni mooy aji kawe ji nee moom dafa am yéene sant yàlla ndax ñi nga xam ne ñoo ko doon jéemal ñoom ñoom la ko yàlla suulal far waaw ñenn ci noon yi suñu boroom moo leen faagaagal waaw rey leen ñu suul leen waaw moom mu desal ko fi nawàccu shukura rafihin abqaani waxad fadaani billazi alxaani دالتي تغنيني مما يغبطني فيه غيري ابدا فيه وفي كتابه وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم اي أيوة وخم غيس نين يالا يننت بالقران ولا يناله ابدا في الجميع غيري كان دوك ام ليمو ام موم دونغ كوي ام امين يا خريب يا مجيب يا سميع وجعل هذه الابيات بشاره كل شهر ابدا امين يا رب العالمين نانا كو يي abiyat yi nga xamanteni bi nak mako bind mom nanga ko def muy mbégte waaw ci bép wèr nak waxul ci wèr wi mako bind rek ci bép wèr muy mbégte ci bép wèr la ilaha illallah wa mawlana muhammadu rasulullah alayhi wa salaamullah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh